dëgg dëgg yàlla moo fonk waajur te bëgg ñu fonk ko mu ne yow doom ji soo jullee mbaa julliwuloo waxtu wu ne na say xel di daw di jëm ci say waajur nga tàllal say loxo di dagaan yàlla ne yow yàlla yàlla nga ma yërëmal suma ñaari waajur yi comme niñ ma yërëmee woon ba ma nekkee ndaw yaakaar naa ku ne ñun jamono ji mu nekkee ndaw nga xam ne bu jooyee waajuram yeewu naka noonu léeg-léeg bi maanaam mu tuur ndox mu yeewu léeg-léeg mu bëgg a dem ca def ko ca wanag wa mu yeewu léeg-léeg mu jooy mu yeewu mu yàq ay nelawam ngir yow yërmande googa ñi am ci yow bu ko yàlla amee ci ñoom bu ñuy dee di dem aljana moo tax mu ne kon kuy ñaanati ci yéen na ñaan ne yow yàlla yàlla nga ma yërëmal su may waajur koom niñ ma yërëmee woon man bi may nekk ndaw kon nag yàlla jàngal nañu ba jàngal ñu nu ñu war a ñaanalee suñuy waajur yi jàngal ñu ba jàngal ñu ban comportement lañu war a nekkeek suñu waajur yi jàngal ñu ba jàngal ñu yan kàddu tamit lañu war a weesalante ak ñoom ak toroxlu gaag la ca aju kon nag yàlla mii bëgg na ñu texe kon nag ni mu bëggee ñun ñu texe na fekk ñun ñu bëggal ko suñu bopp su boobaa kon rek la ñu bëgg a fekk danañ ko mën a am